waaw bah, Momo mhm. international sénégalais. Euh, mini foot. waaw match bi comme ni ñu koy waajalee rek comme d'habitude rek. Mhm. parce que xamante ne ne attendre suñ ñuy xaar. Mhm. kon dañuy ñaan yàlla bismillah ar-rahman ar-rahim, génne si si alhamdulilah rabbil alamin parce que nous ñooy vice champion d'Afrique. kon am na loo xamante ne ne euh, match yi du yomb. mais bon dañuy def tout pour. Euh, def euh, euh, trois points. Mhm. nga xamante ne ne attente yi duñu décevoir kenn ko waaw képp kuy dem compétition moom da ngay da ngay da ngay waajal si bépp boor. Mhm. ñun amuñu préférence euh, adversaire parce que tamit boo xamee boo boo boo nekkee vice champion Afrique am loo wane si wàllum coupe du monde indi kon instant bi ni amatoo benn choix wu adversaire kon ñun gars yi def naa ni def nañu préparation bu baax mentalement physiquement dañuy ñaan yàlla rek lu ñu liggéey Sénégal ñu àggale ko ci terrain bi Salam euh, salaamaaleykum. Mm-hmm. Sidat Ndiaye, euh, joueur mini-foot Sénégal. On est bien préparé mentalement et puis on est là pour, euh, décrocher le trophée, notre mm-hmm. première quand même. Mm-hmm. Et on est bien confiant pour cela. Je pense pas que nous une dara de compétition, d'autant plus que nous sommes fi déjà ñi fi nekk ñun xamuñu leen sax. mais nous sommes obligation de gagner coupe bi et puis ñibbeeg au Sénégal. Quelle que soit alpha équipe bu ak ñi ñëw ñu ñëwul suñu yoon newul suñu yoon l'essentiel mooy jël li ñu moom dem. bien sûr bien sûr on est des lions quand même. jaajëf jaajëf.